dañ la doon laaj loo xam ci combat Modou Lo ak Lac de Guiers démb. Euh, combat Modou Lo ah wax bi kay xanaa léegi leer na ah du dañ ne woon euh, dem delsi la bi mu delsee gis na la mu fi baax lu raw li la fi fekkaat waaw. Euh, pour yow est que arbitre bi warul woon bàyyi combat bi continuer au lieu muy jox victoire bi Modou non xam nga arbitre bi comme ñoom ay heure la ak ay minute ak sanction bu am dañ ko war a signaler moom da doon dóor n'est-ce si dox moo tax arbitre bi arrêté combat bi loolu kay si war a mën a wax. la waa est-ce yow Modou Lo warul woon def plus d'effort warul woon dem daal jël Lac de Guiers au que mu taxaw di ko xaar. non Modou Lo moom boo waxee xool yow xanaa seetaanoo combat bi. seetaan naa combat mais ko laajee dafa ne moom dañ ko ne na taxaw xaar. mais buñ ko taxawloo it man li ma seetaan gisuma mu taxaw. parce que songu na ko du benn du ñaar sa waay di arrière kan moo fi génn saako yi ñaata yoon la Lac génn saako yi loolu kay wax ay ay Modou dafa taxaw di xaar Modou Lo moom xaar ko fenn moo ko song dóor na ko yóbbu na ko ardo wax bi kay xanaa léegi leer na. waaw leer ba pare ñu jox ko victoire. ñu jox ko victoire léegi nañ ko ñaar yeneen i ndam yu bëree bëri. waaw léegi looy wax Lac de Guiers. mu muñ rek te mu jéemal nag di di songu. yi nga bëri da ngay waaye bëgg a yaakaar da ngay taxaw rek gars yi ñëw dañuy dal sa léegi amul boo taxawee sax ñu fekk si la dal sa kaw. abi ni ma ko gisee de neexul parce que man sama 3000 la dagg billet dem stade mais gisuma ci lu ma xam parce que maanaam boo xoolee lamb ji daal neexul parce que gisuma ci jël jël amul parce que ay avertissement avertissement ba mu neex leen ñu yëkkati ku leen neex ne kii moo daan loolu amul te man waa CNG li ma leen di li ma leen di ma leen di conseil en tant que amateur làmb mooy ñoom seen jëmmi bopp dañu war a xoolaat maanaam di droit yi ñu teg nii quatre appuis quatre appuis ñun ñoom ñoo ko fi créé musul am ci làmb depuis jamono yi ñoom Mbaye ay Robel Diouf ay ñoom Doudou Baka Sarr xam nga lu ma la euh, avertissement ci ñoom la am te loolu c'est pas normal ñun jël la ñu bëgg du ñu fay suñu xaalis ba pare ñëw toog di seetaan te ñu gis jël seet ku leen neex jox ko victoire te làmb ji yëpp Modou Lo ci boppam gàllaaj kese la ay legen la doon dëgg muy toj di yor ay morceau gis nga ko bi mu daanee morceau yi la jël di wër di daw mu sig la lépp mu sig la moom léppam gàllaaj la. kon daal yow da nga gis ne daal Lac de Guiers dañ ko jàpp mystiquement. Lac de Guiers kenn jàpp ko mystiquement poids bi mu yëkkati moo ko song man sama mbër Balla Gaye la faralu ma leen ñoom ñaar ñëpp mais li ma gis démb ci làmb ji neexu ma. yow léegi sëñ bi da nga xalaat ne waa CNG dañu war a xoolaat. Euh, ni ñuy doxalee wala. waaw mooy yoon dañ ko war a xool ni ñuy doxalee moom man ànduma ci en tant que amateur di fay sama xaalis di dugg ci làmb ànduma ci loolu man Baye Fall. mais yow gisoo ne sëñ bi que Lac de Guiers daal comme ni ko gars yi waxee combat bi yëpp daf ko daw taxawul jëlul benn initiative Modou Lo moo song moo def lépp xëy na looloo tax arbitre jox ko victoire wala. song na ñaari yoon li ma gis song na ñaari yoon song na ñaari yoon benn bi mooy bi mu ko jàppee noonu bañ yaakaar day dem demul. beneen bi ci des encore mooy bi mu ko songaatee bi muy génn ci la muut Lo toj gémmiñam mu dem ci kii Ardo ñu dem di xoolaat ñu xoolaat gémmiñam googu lu ci toj. kon daal euh, dañu waroon bàyyi combat bi wéyale ba jéel a am. waaw lool moo waroon a am loolu moo waroon a am loolu moo waroon am mais avertissement yi man mun naa ñëw taxaw lekk sama xaalis bu ñu mën mënee nii ma daw génn bu ñu mënee nii daw génn ba muy quatre fois ñu jox keneen ñu jox keneen ñu jox keneen victoire bi. démb combat bi comme mooy wax ji rek combat Lo dafa yomb trop. yaa ngi dégg ndax ñoom ñaar ku ci nekk ay millions lañ la fay yaa ngi te gis nga football nu mu dee dañ lay fay million nga football 45 minutes footballaat 45 minutes muy 90 minutes comprends nga mais nga bëgg a bëri 20 minutes benn 20 minutes rek ñu bëgg a jël ko victoire di ko jox kële lamb ji loolu la ñu war a bàyyi dañ leen war a bàyyi ñu bëri ba naaw comprends nga gars yi di ne Lac de Guiers songul songul songul bëriwul ñoom mooy loolu comprends nga Lac de Guiers bëri na def na lu mu mën c'est que dafa fekk ni yàllaa ko dogalee nii rek mais arbitre tamit benn instant nañu ñu tamit gain di bàyyi suñu mbëri yu bëri mooy loolu mais mënuñu jël combat di préparer ah panda ñaata at yow combat bi depuis 2017 lañ ko deug ñu jël suñu combat préparé ko ci benn 20 minutes rek ñu dem jël victoire ko jox mo Lo loolu dafa yomb kon yow gissone arbitre bi dafa waron jox victoire non gisuma ko won gisuma ko won lu mu dee dañ leen waroon bayaat ñu bëriwaat benen 10 minutes ñu soko jox mo no victoire su dee waaw bu dé la dégué mo avertissement ñu soko jox mo no victoire mais loolu dafa yomb mais arbitre bi loolu la dé mais non non non dañuy waxtaan rek sonasi dañuy waxtaan mo Lo dañ ko fay xaliss la dégué ñu fay ko xaliss comprendre ñu ñaar ku nekk ay millions lañ la fay mais ci benn 20 minutes yow si million si benn vingt minutes kon man man su ma nee sama dem nekk ji mbër bëre benn vingt minutes ñu jox ko la victoire loolu dafa yomb. yow yow gisoo ne Lac de Guiers dafa daw te arbitre bi règlement la dawal. non arbitre bi règlement mu daw loolu amul fenn waa CNG seen règlement dañ ko war a changé yaa ngi dégg règlement bu ñu daw amul fenn comprendre nga ñoom ñaar nan lañ ko mun a bëree Lac de Guiers song Modou Lo ñu xeex bëree ah mais dafa fekk dañuy jël Modou Lo di ko favoriser rek la ñu war a bàyyi contre Gris Bordeaux nii la demee. comprendre nga ñu bëre ba gars yi bëree jël bu di ko jox Modou yooyu la ñu war a bàyyi comprendre nga ñu bàyyi gars yi di bëre ba naaw comprendre nga mais Lac de bëre na song na bàyyi dóor na def na lépp c'est dafa fekk nañ ko yeb rek dafa fekk nañ ko yeb rek loolooy wax kon da nga gis na daal affaire bi dafa am farfarloo daal dafa am farfarloo gars yi Modou Lo jël di ko favoriser la a bàyyi la ñu war a bàyyi yooyu moo amul fenn yaa ma gërëm yow xam nga lu may wax nii bu baax comprendre nga parce que Lac de Guiers tamit dañuy waxtaan rek mu préparé combat pendant ñaata at ah préparé na ko. yow sëñ bi gisoo ne Lac de Guiers dañ ko jàpp mystiquement wala. jàppuñu ko benn mystique ñoom ñaar kenn jàpp fenn sa morom mystique dafa fekk ni ñu bëre rek bëre nañ ba naaw ñoom ñaar ñëpp yaa ngi dégg dafa fekk ni arbitre moo def yëfu naax naax saayam affaire yooyu ñuy def rek dem jël victoire di ko jox Modou Lô mais ah, bi man de seetaanu ma ko tuur la ma fekk ndax xam naa ne man mënumaa seetaan combat Modou Lô ndax damaa kër si Modou Lô ba mu ëpp. waaw loo xalaat léegi ci victoire ah victoire bi man moom bettu woon wax dëgg si yàlla toogu ma sax di si am xel ñaar ndax xam naa ne Modou moom ñëpp xam nañ ne day dëgal boppam gëm na boppam te moom day day day bëre respecté na respecté na ay supporter am day def lu mu am rek jël mais du ñëw di defendre boppam wala leneen la déggee nag ñëpp xam nañ ne moom du bërekat day rasu xamoon nañ ne la mu mën rek loolu lay def li mu xam tamit loolu lay def Modou Lo moom moo moo moo moo dirigé làmb ji moom moom moo bëre moom moo daan daal daanul daal mais li mu def nit ñi xam nañ ne kii yëg na ay supporters am yëg yëg na ne làmb ji xaalis lañ ci financé yooyu mais Lac de moom ñëpp xam nañ ne moom li mu xam moom lay def moom la de moom rasukat la moom waaw. mais gisoo ne soxna si arbitre bi dafa waroon bàyyi combat bi ba jël la am au lieu que muy jox victoire moom. waaw man de man looloo ma gënaloon ndax chaque jour match nii surtout match nii lañ joge moom normalement bi moom waroon nañoo bàyyi dara dara xew moom mais waruñoon jox kenn victoire. mais xëy na avertir avertissement yi kii am deux fois looloo tax xëy na ñu jox ko. mais gars yi dañ gis ne dañoo favoriser Modou loo de arbitre yi dañ koy faral moo tax ñu jox ko fi. pourtant nag làmb ji Lac de moom lañ favoriser woon xëy na dafa dem ba ci biir Modou Lo wane lu moo moo wane lu tax moom ñu favoriser ko jox ko làmb ji mais euh, la de Guiers ñëpp a ne moom mooy daan Modou Lo du moromu Modou Lo waaw. ah mais nee nañ arbitre yi dañoo far de. arbitre moom moom moom yàgg nañ ci loolu du ci Modou Lo dong lañ ko def bu doon ci Modou Lo lañ ko def ñu ne c'est la premier fois mais arbitre yi moom xam nañ ne chaque jour làmb ak loolu ñoo ànd mënut a ñàkk waaw. mais gisoo ne waa CNG maanaam ñu yor làmb ji war nañ xoolaat seen doxalin daal. loolu moom bañ ko waree xoolaat sax mais du si combat bi loolu yàgg na ndax chaque jour problème day am diggante arbitre yi ak làmb jeeg supporter yeeg yooyu yëpp day am ndax yenn saa nga gis combat yoo xam ne supporter yi dañuy mer sànni ay xeer def yoo xamante ne. bokku ci làmb dal mais ñom tamit am nañ ci part de responsabilité bo xamné war nañ ko mëna a dal da doon laaj sa xalaat ci combat bi de. mett na ma torop sama xol dafa nakari mett na tax mu met ndax ñom ñëpp samay fans lañu waaw. Euh, verdict bi mo la neexul wala. niñ ko bëri da yomb da nu mo waroon daan te daanu ko mo met da nga bëggoon jël la am dal jël waaw kay jël mo wara am. bu lié que ñu jël victoire bi ko jox. waaw kay. te jël la ñu wo tolo ñom ñëpp. wañ daal di sëggaat nak gis nga ne daal CNG daal ni mu doxalee reglement mu yoon moom wax dëgg yàlla làmb sama affaire wu ndax man damay yuuxu rek de diw waaye làmb démb bi moom takk na suuf waaw. est ce que gisoo ne comme gars yi li ñuy wax naan dafa am par parloo wala. ah ñoom ñoo xam seen biir ñoo ko dund waaye nu met daal moom met na sama xol moom. est ce que làmb ji démb feeñ na ci walla ah est ce que am nañu mystique ku nekk def na sa sa war a gam dóolante am na ki dem na àddu ki dem na àddu waaw waaye dinaa si boppam ñu jox ko witt waaw loolu dafa metti daal. waaw dafa war a bàyyi bañ a jàpp bañ dem si mu saf sap waaw. kon daal arbitre bi daal warul woon jox victoire. moom ba pare ñu ko defee ay sita ngoos ak sol ay slip loolu ma mett na ma torop ku dem tool ba bàyyi laat mett na ma torop ci net bi ci net bi net bi moo yàq dëkk bi ah wooy defaluwaat moom ndax moom démb ñu ko saboté moom bay na lool ku romb di wax lu doy nit tuur bu mu am ka dafa metti làmb nag moo mel noonu moom leelu ñaam bi la ku njëkk a daan rek daan sa morom waaye daa wóor da defal combat sama tànk yi baaxul ak dafa waye deeg bopp bi def ko si làmb ñun daa affaire dafa métti xol waaw. laaj noo gisee combat bi démb. ah combat bi xanaa kontaan si rek macha allah euh, c'est parce que fu ko ñu ñu doon séntu macha allah mën naa ne amul ñu bëri ñu ngi séntu woon ne la dëgër bu jàppee moom loolu doy mais xam nga rek moom loolu daal kii daal dafa rusloo gars yi démb ak Seydina Mouhamed waaw moom moom gaa ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp kenn du sama mbër booy boobu booy boo ñu ko xel bu baax a baax a baax waaw. kan la Modou Lo yow est ce que arbitre bi dafa waroon bàyyi combat bi continuer ba jël parce que arbitre bi may na ñaata 15 minutes 15 minutes 30 minutes foofu la mën a te booy bi dem na ardo ñaari yoon am ñaari avertis la a mën a tamit kon daal yow gis nga ne Modou mérité na victoire bi allah mérité na ko bëri na nice kee moom bëriwu dafa taxaw rek benn place bëgg gang ñëw mu profité ko te loolu mënul yomb waaw waaw léegi kon looy wax de guerre nga lañ ah mu góorgóorlu rek euh, yokk entraînement am rek macha allah parce que mbër la moom wax dëgg yàlla mbër la ma ñoom ñaar ñëpp kenn du sama mbër Eumeu Sène mooy sama mbër mais ku seetaan combat bi démb xam ne mooy loolu daal mu góor gën a góorgóorlu rek renforcer tey bëree su ñëwee parce que bu nit bu la joxee avance am jox la xaalisam boo ñëwee si làmb ji yéen ñaar la ngeen fi da nga war a sëgg jàmmaarloo ngeen bëree. mool euh, kii li mu am euh, la déggee li mu am yëpp démb su fekkoon mooloo moo ko am daan xoolal image yooyu occasion yëpp nga am ko mu di bàyyi muy dem bu fekkoon gaynde gi la day dem ba jeex de Balla Gaye rek doyul bay des. Euh, léegi yow soxna si noo gisee physique gu mbër yi démb ba ñaari mbër yi ba ñu taxawee ñoom ñaar ñëpp am nañ entraînement wala am na ku ci ëpp entraînement. am nañ entraînement macha allah surtout Modou loo nag foofu rek laay waxee Modou Lo bi muy si surtout bu muy bàkku man dama découragé woon dama ne ak ah, kii mooy loolu mais bu mu yegsee bu teel bu mu mujjee xëppoo moom dafa sekk nice man ma kontaan ci moom et am na entraînement surtout yi li ñuy wax entraînement si bëri lay feeñ dëgg la entraînement na nice bu entraînement bu ko amutoon saa waay daan na ko bu yàgg wax kon gisoo ne combat bi démb mystique feeñ na fa daal. Hmm? mystique démb est que feeñ na ci combat. mystique feeñ na si doole feeñ na si. waaw. kon ku mën ci mystiquement. ku si mën. Modou Lo. léegi doole. Modou Lo moo jël lépp.